ko tooñ de maa la xamal lii de bu xeex ba moom Ousmane Sonko tooñ te naa la naa la expliqué léegi lu tax Ousmane Sonko tooñ moo dem kër jàmbur ah, <laughs> ah moom dëkkul pare di jëma xeex du pare la ñu fa la amee. waaw moo dem pare la amee. waaw donc moo dem kër jàmm moo tooñ. Ousmane mais ko dëkkul pare petit pare la dëkk ma nga ca ginnaaw géej ga. donc su demee palais di fa xeex. moom moo mm. tooñ. moo dem kër jàmbur muy benn ñaareel ba Salma man li ma jaaxal man dama yaakaaroon ne ñii ay salafiste lañ. ana salafiste xëccoo dem màggal. màggal kay ñun ñoo koy xëccoo ñun murid yeeg tijaar yeeg laayeen yi nga fay ñuy xëccoo màggal ñun ñu gëm tarixa mais ana salafiste xëccoo. xëccoo <laughs> xëccoo xëccoo amee ah, loolu ma jaax xëccoo dem màggal. et puis beneen bi mooy. ñoom ñoom fi ñu dëkk quartier bi ban quartier la. Euh, Fancy. foofu palais bi nekk. plateau plateau chef de quartier war nañ ko deful parce que normalement vous faites ñaari nous daño xeex ci quartier ba chef de quartier vous wara convoquer. wala wala su nous mën leen convoquer mu dem ñu wax Ousmane Sonko mo togn mu wa quartier bi Sonko nag daa mel ni moom ci su fekkee ne su fekkee ne keneen moo toon chef de quartier bi chef de quartier bi daal amee nañu explication xaw ma nag kan la xaw ma Abdoulaye la ma kan de quartier ba ca kii euh, kii ba nu tudd palais ba mu nekk il faut ñu de quartier mais on en mais non mais c'est ne dëkk bi hmm. dafa am paayi tux yambaate xamuñu ko dëkk la ak ay maire